moom ku tedd ki xaadimu rasuul Cheikh Ahmadou Bamba moo bind ci xasida googi mu tudde minanu baaxil xadim lii la Sëriñ Tuubaa wax biraasu man baara sani biraasu man biraasu man baara sani biraasu man yu baarisul muntaqiman baari saman Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu moom موخني برازومن بارزني برازومن يبارز المنتقم البارز زمن نكيغا خامني دا فاي ليوتوك موم كوكو سونو بوروم تبارك وتعالى لي ليوتور لولي نك داي فيرندل وخي الله سبحانه وتعالى نك سونو بوروم موخ سي القران ان الله يدافع عن الذين امنوا واخني سونو بوروم موي ديفاندر موي ار موي جانيال mboolem ñi nga xam ne dañ koo gëm te ngëm yàlla ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla bokk ñoo sax nit yàlla yi maanaam indi ngëm yàlla ay étape la am na ci ñoo xam ne ci wàllu ngëm yàlla dañuy dem ba àgg ci dugg ci awliyaawu daay awliyaa yi dama étape la darajaat la yu kenn xamuñu toll ñi nga xam ne ñooy awliyaa yi nag moom suñu borom wax na ñoom du yem ci défendre leen waaye ku leen tooñ mbaa nga noonu leen kese ci sa xol da lay déclarer guerre loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci xadis bi ñëpp dëppoo ci wéram ne man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi mooy suñu borom déclaré na guerre képp koo xam ni noonu nga ab yonent waxuma nag nag di ko lor mbaa nga koy solal biraazuman baarazani biraazuman yubaarizul multaqimal nga xam ne si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul daf ciy wax wax ju wax ju wax ju rëy wax ju wax ju màgg màgg di wax ne yu biraazuman baarazani biraazuman yubaarisul muntaqimal baariz zaman prix mi mooy képp koo xamante ne yaa ngi jub di lëwtoo ak man wala nga fas ma yéene song na la wóor na yaa ngi song ki bind asamaan ak suuf dañ koy delloo nag ci yu yu baree baree bare bare yoo xam ne ñoom la xaw a yamal walla mu xaw a niroog ñoom du moom moom kese ndax su fekente ni nii ñun ñëpp maase nañ nangu ne mom ci bopam rek mom ci fay ko xamantene da fay ki man bu sun borom subhanahu wa taala wacce ci kaw suuf te man gogu si amad bamba sun borom mi ngi ko ko jaarale ci fi nga xamantene fi la ay gaayam di jaar ci xam kan moy sun borom subhanahu wa taala ak nangu ko jaam ak xam nan moy ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ak darajaam ba def ci lo xamanteni ni jenn doomu aadama mosu ko ja def wala ba histoire net le gunu ko ci ci ci baye xel li lam andi ci kaw suuf ci anam go xamanteni ni dafa and ak ay nattu ak tank tak ak tolof-tolof te lu mu ci man do nek lu yek daraja dara loo xamante ne nii luy kawel ma do ma la sun borom foofu la ko ci nek ki ma wax nga mooy bayit wi sëriñ tubaa wax ne biraazu man baarazani biraazu man yu baarizul muntaqimal baariza man li muy tekki ci baat yi mooy léwtoo ki nga xam ne mi ngi léwtoo ak man dafa mel ne mooy léwtoo kii léwtoo suñu borom mi nga xam ne mooy aji fayu ji mooy ki nga xam ne moo bind jamono maanaam daal kuy léwtoog man mooy kii léwtoog ki nga xam ne moo bind jamono bayit woowu nag maanaam yi sëñ bi da koo wax waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko wax ci xadiisun qudsi bu wér yàlla moo wax ne man aada li waliyan faqad aazantuhu bil xarb képp koo xam ne noonoo na ak sama waliyu mooy ab xejjub suñu boroom daman yàlla déclaré naa ko guerre kon xeex ak waliyu mooy xeex ak suñu boroom ndax suñu boroom moo ko wax ci xadisul qudsi boo xam ne yonent bi moo ko nettali kon saa bu nga xamee ne dem na ba jege ma Bama sopp ko nee man may muju nek loxom may muju nek tankam moy muju nek nopam may muju nek beutum lepp lu ma ñaan ma defal ko kon buñu seetloo ci l'islam ñaar rek la suñu borom déclaré guerre te ñaar ñëpp ñuy togn doom adam lañ ba ci jëk moy ki nga xam ne togn ab ab julit wala nit rek moy ki jëfandikoo riba koku suñu borom ci alcorane dafa wax ni déclaré na ko guerre fadaru bi min allah ka topp nag ci lislaam jëpp ci ñim déclaré guerre mooy koo xam ne dafa noonu nitam kenn ci wàllu yoom yi ak nit nit yàlla yi subhanahu wa taala kon foofu ngay déggee li Sëñ Tuubaa wax ne biraasu man baarisani biraasu man lu baarisul mun taqimal baarisa man mooy yàlla ci moom moom mooy xeexal nitam yi rawatina ku mel ne Sëñ Tuubaa nga xam ne moom dafa féetewoo suñu borom suñu borom féetewoo ko mu demee suñu borom noo xam ni lu naqaree waxtaan la ñoo ñooñu suñu borom daleen leen dugal ci la mu wax ne wala yajal allahu lil kafirina ala al muminina sabila maanaa yéefar yi luñ bari bari pexe ci mën a faat mën a lor mën a yàq mën a gaañe mën a tooñ duñ mën a am ci moom aw yoon foofu ngay déggee xar baax yi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa eh, feeñal moom la moom a feeñee ci Sëñ Tuubaa bokk ci digganteem ak noonu yëpp xeetu lor gu ne def nañ ko ko sëñ Mawlaaya Bousso nett la ci bare bari ci xasidaam googu mu def ci tukki sëñ bi wane ne dugal nañ ko ci am pax am pax dégg nga gas ko ba mu xóot ñu suul ko loolu wax na ko ci boole nañ ko gaynde boole nañ ko gaynde boole kooku nag yooyu yëpp lu ci ne mu génn ca mucc takk ko itam fital ko ay mbooloo fitalandoo te kenn jëmut ak yu bare bare xeete yooyu yi nga xam ne da ca mucc da koy dégg ci li suñu borom wax ne wala yaj'al allahu lil kaafirina ala na muminina sabila te suñu borom waxoon na ne moom dafa warlul ci boppam wa kaana xaqan alayna nasrul muminina maanaam nit nit nit ñi nga xam ne ñoo ko gëm kese rek te sellal yàlla dafa waral ci boppam ne faw mu mu mu mu mu jàppale leen faw mu dimbale leen faw mu taxaw leen te waxoon naa ne da ngëm yàlla ay étape la nit ki lu ngëmam di gën màgg mu mën a dem ba dugg ci ak wilaaya wilaaya itam ay étape la yoo xam ni ginnaaw ba ci nga ci la ci la nubuwa tàmbali hmm. loolu laa déggee biraasu man hmm. baarasani biraasu man yu baarisul muntaqimal baaris zaman biraasu man biraasu man baaris man baaris ni biraas man mi baaris lu mu tax mi baaris man maanaam Sëriñ Tuubaa dafa bokk ci nguur yàlla yi nga xam ne suñu borom daf leen a gërëm suñu borom nag bu gërëmee nguur yàlla dafay léppam maanaam day guddeem di bëccëgam di bisam yépp di temps bépp Sëriñ Tuubaa nag nekk ku ci ràññi koo xam ne dafa wax ne biraas man baaris ni képp koo xam ne ngaa jóg ngir léewtoonte ak man day mel ni yàlla ngay léewtoonte te léewtoonte ak yàlla dafay mel ni ko ci def du am ndam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne yàlla suñu borom nit ki dana ko jigéen di ko jige bu muy tànkam yi muy doxe di loxoom ya muy laale di gémmiñam nga muy waxe di noppam yi muy dégg di bëtam yi muy gisee nee na bu fa àggee nag yàllay kese lay doon noonu mu nekkee yàllay kese nag martaba la ci awliyaullahi loolu moo tax mu sañ wax ne su man baari sa nii su man yu baari su mun tàq baari sa man xam ne àla kulli alin dala koy xam mooy darajati taalu walay sa tan xafit wa man na xaaminal wara xaf dir ko sama daraja yi yëkkati ko ba pare te képp ku jógati ngir bëgg koo suufeel da nga daanu yow ndax lan mooy suñ borom ngay dëkk bële moo tax mu ne wallaahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri saa nabxin bila dara yàlla dimbali na may borom ñey njëriñ loo xam ne amul lool. am boo xamante ne nii moo gën a kawe boobu mooy alfanaawu ñu koy wax mooy nga jeex ci sa borom subhanahu wa taala ba nga xam da ngaa seey ci moom ni ngay jëlee suukar wala ne seeyal seeyal ko ci mëneen bi bañ ni ki suukaram noonu lay noonu lay noonu lay demee bu àggee foofu nag yow yaay sa borom sa borom mooy yow lépp loo xamante ni doomu aadama mi ngi koy jëflante ak yow bàyyeetoo xel ci ne nit mi ngi jub jëm si ci yow am lu muy xalaat wala lu muy yéene wala lu muy bëgg. dafa am boroom xam-xam boo xam ne dafa wax ni. waaye français lan na gooru Sénégal ñii ñu dugal ñu dugal far dem ba faatu. ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu i soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir ma faraañse ñoo gene lam de julbeere yi ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar